président bu toog loolu daf koy yokk doole da koy may doole parce que ci lay demee ci chef religieux yi du ma wax nag ne ñëpp la nag waaye am na parce que am na benn politico euh, benn benn mafia politico religieux bu am foofu noonu Sénégal te loolu on a disconvient pas loolu kenn weddiwu ko loolu dëgg la du ma wax nag ne ñëpp dañ leen di jël mettre leen dans un même sac ne ñoom ñëpp dañ see bokk waaye am na ci ñoo xamante ni ay complice état bi lañ te loolu ji nga xamante moom moo sonal Sénégal depuis 1960 deuxième bi mooy la justice c'est une justice corrompue séparation de pouvoir bu ñuy wax amut loolu ay fen la na ma yàlla baal ngeen baal ma dañuy nax ni ñu di leen fen di ñu gëmloo ay séparation de pouvoir ñun bu ñu nekkee xale di jàng école jàngal nañ ñu ko ci éducation civique ay euh, peu euh, ay ay euh, pouvoir exécutif pouvoir judiciaire pouvoir législatif législatif mais loolu masul am Sénégal dañuy nax nit ñi te loolu il faut que ça cesse il faut que mu dëñ te loolu dañ ko war a xeex pour mu dëñ loolu rek moo yàq Sénégal troisième bi mooy euh, président boo xamante ni dafa nekk président ba pare nekk secretaire général u parti loolu tamit il faut que mu dëñ ci Sénégal donc ñetti point yi laa lay wax gis nga président il faut ñu wàññi dooleem ba nga xamante ni dootul amati doole ju muy xeexee ak ay adversaire il faut qu'on supprime la caisse noire parce que caisse noire boobu bu ñu fàtte ne huit milliards la te huit milliards dafa bëri loolu ku ko amee da ngay am doole joo xeexee. huit milliards moom ku ko yoree moom da ngay mën a xeex. duma sociologue mais ci côté sociologie dinaa ci wax tuuti rek. boo xamante ni ah. je l'ai appris sur le temps hmm. ñun dañoo nekk benn peuple boo xam ne ñun tamit hmm. ñun lu ñu dal rek des fois ñoo koy teg suñu bopp parce que dañoo desee nekk ñoo xamante ni dañoo am fulla am fayda ba pare am lu ñuy bañ donte nag hmm. waa ñun ñëpp meluñ noonu xam nga tey yow Alpha soo ah. waxee ne yow kilifa diine nga wala communicateur traditionnel nga wala Euh, da ngaa yore parti politique. te yow nga ne da nga bëgg Sénégal luy jëmale Sénégal kanam moom moo la tax a jóg si loolu rek ngay dox. mais léegi lan moo tax léegi président boobu ñu fal jox ko suñu doole. l' di contribuable bi. mu nekk euh, yow boo demee ci boutique bi jënd saako ceeb. ak man su demee ci boutique bi jënd fa benn grosse suukar. wala sama doom dem ci boutique bu jënd fa tàngal loolu yëpp dinañ ci jël TVA te loolu yëpp boo ko dajalee moom mooy l'argent di contribuable maanaam ñun dañuy participer mm-hmm. ci développement wu réew mi di fay impo soo amoon mm-hmm. entreprise tey yow Sénégal da ngay déclarer di fay impôt soo amoon boutique da ngay fay patente soo ñëwee jógee ko Europe yóbbu sa conteneur da ngay dédouaner loolu yëpp tey yaa ngi participer yow ci sa développement wu réew xaalis boobu nag xaalis boobu ci ci la ñuy ci la war a tabax tali yi ci la ñu war a defar tabax ay école ci la ñu war a fay enseignants yi ci la ñu war a fay euh, comme euh, fonctionnaire yeeg yëpp defar ci réew mi. léegi na xaalis boobu ñu jël ci huit milliards jox ko benn doomi aadama. Mm-hmm. tànn ko ne ko jiite ñu ba pare jox ko huit milliards ci l'argent du contribuable na ko am te lii doo ko justifier mm-hmm. donc amut kenn koo xamante ni daf koy contrôler. te xaalis xaalis dafa war a am traçabilité. Mhm. léegi yow président bu jub bëgg lu jub bu fekkee ne da ñëwoon fekk sa ay euh, ñi la jiite woon ñi nga xamante ni ñoom ñooy sa prédécesseurs yi doon doxalee noonu yow boo ñëwee na man lii ànduma ci parce que lii jubul xaalis dafa war a jaar fu leer. waaye li ñu dal ci Macky sàll mhm. mooy li ñu doon xeex ci Senghor di ko xeex ci ab Abdou Diouf di ko xeex mhm. euh, ci Ablaye Wade moom dafa ñëw mu gën a pire. boo gën waaw. waaw bi mu ñëwee. Mhm. lim ñu doon dig yëpp ne moom bu nekkee euh, euh, bu accéder au pouvoir daf koy mhm. daf koy dind yëpp daf ñoo war après. mu dem signé euh, mu dem signé ci assises nationales yi. Mhm. parce que assises national lu tax ñu def ko pour defaraat bànqaasu réew mi nu muy doxee defaraat réew mi tamit. mu nekk ay charte yoo xam ne ñu Amadou Mahtar Mbow moo ko jiite woon président ko ci temps boobu Benno Siggil Sénégal ñoom Moustapha Niasse Tanor Dieng ñoom ñëpp bokkoon nañ ci ay ñoom Momar Samb ak euh, ténor opposition bi yëpp wax ne ñoom d'accord nañ ci signé ko maak Sall d'accord ci signé ko mais bu mu yégee li mu njëkk a def mooy jël loolu sànni ko fële. dem uti benn plan bu ñuy wax plan Sénégal émergent ak xawma euh, yoonu yokkute jël assise nationale sànni fële. parce que li nekk ci assises national yi arrangé wu ko. non non te assises nationales yi lu ñu ci def mooy li ñu daloon ci Senghor dal ñu ci Abdou Diouf dal ñu ci Abdoulaye Wade mooy président boo xam da ngay ñëw toog yore tous les pouvoirs di manipuler la justice yore euh, législatif bi amee sa ay député foofu noonu di leen voteloo sa ay loi loo bëgg mooy am su la benn adversaire politique sonalee nga fagagal ko jiñ ko sàcc tëj ko ci kaso bi loolu yëpp avec la complicité de la justice. Mm-hmm. léegi nag loolu lañ doon xeex ba tax ñu defoon assise nationale mais Macky bi mu ñëwee dafa xam ne loolu arrangé wu ko mu jël ko sànni sole ci mbalit mi def di n'importe quoi def lu ko neex. def lu ko neex waaw def lu ba pare moom ba pare moom moo gën a ëppal gars yi parce que moom dafa dem ba sax di éliminer ay adversaires politiques na leen yeen sax du ngeen bokk ci élection yi xam nga tey ñi jiitu ñooñu daan nañu daan nañu fexeel comme par exemple soo jëlee le cas de Senghor. xam nga sengoor moom euh, waxoon na ne waxoon na ne euh, nga baal ma ma tëj fii dafa xaw am benn bruit Senghor dafa demoon éliminer Mamadou ja tëj ko kaso jaay ko doole ak ñoom Valdiodio Ndiaye jiñ leen coup d'état ne dañ ko doon bëggoon a coup d'état léegi Senghor Mamadou Dia mooy victime am Abdou Ablaye Wade moo nekkoon victime am da ko daan jàpp di ko tëj kaso mais terewul bu élection jotoon Ablaye Wade daan na participer. dëgg la Ablaye Wade jàpp na Idrissa Seck jiñ ko ci affaire yi chantier de Thiès yi tëj ko kaso. mais terewul 2007 participer na jël deuxième. xam nga ñooñu au moins sax ñooñu ëppaluñ mais kii dafa ëppal. kii dafa ëppal moom dafa ñëw wax gars yi ne leen yéen da ngeen dul nekk sax candidat yéen. tere leen jaay leen doole na leen yéen du ngeen nekk candidat avec la complicité de la justice ak ay chef religieux na ma yàlla baal ci kàddu gi hmm. du ma wax nag ñëpp mais am na si ñoo xamante ni waroon nañu yëkkati seen kàddu hmm. bu wax jotee ñu wax ak Macky Sall ne ko wax dëgg yàlla yaay président de la république mais nag hmm. lii ak lii ànduñ ci ak yow xanaa nag Macky nekkul koo xamante ni moom moom moom moom lépp lu mu def rek baax na il est parfait waxal de mais nul n'est parfait amul kenn koo xam ne da nga parfait mais yow nga ne yow kilifa diine nga na ma yàlla baal ci kàddu gi yow xalifatullah fil ard comme lu comme lu yàlla waxoon yonent yàlla daawuda ne ko yaa daawuda inna jaalnaaka xalifatan fil ardi faxkum bayna annaas bil xaq wala tattabi al hawa fa yudilluka an sabilillah xam nga yàlla sas na yonent yàlla daawuda foofu te après yonent bi wax na ne al ulamaau wurasatul anbiya boroom xam-xam yi ñoom ñoo doon yonent yi ci kaw suuf léegi nag nubuwatu amatut yonent bi mu bi mu génnee àdduna la affaire ay yonent jeex léegi nag ñu ne léegi wàllu yi mhm. comme ay ñoom sëñ Touba ñoom maam alxaaji Abdoulaye Niass di papaay Baye Niass ay ñoom euh, Seydil Xaaji Malick Cheikh Omar Foutiyou bu Kunta Ndiassane waa kër Cheikh na Cheikh Saad Bou ak ñëpp daal soo limee da ngay juum waaw ñu ne ñooñu ñoo représenté yonent yi ci kaw suuf ñooy représenté yàlla tamit ci kaw suuf te ku représenté yonent yi yaa représenté yàlla parce que yonent yi ay représentant yàlla la ñu woon ci kaw suuf. Mhm, léegi nag nga nekk ak benn waay muy def di n'importe quoi ñu jox ko suñu doolee yéen ngeen am kàddu ci ci ci askan bi am baat ba pare nga du ngeen ko wax dara. rek. mu jàpp xalifa Sall toroxal ko ba mu na tott mhm. jaay ko doole tëj ko ci kaso gi. Mhm. toroxal ko ci kanamu nawleem yëpp jiñ ko sàcc di ko teg benn plan boo xam ne plan de liquidation la ñëpp xam ñëpp di gis ne ki plan bu mu teg nii pour liquider Khalifa Sall la en commençant par ñu jaarale ko euh, ci IGE ñu dem fi Khalifa Sall audité ko ñu jógee fa mu dem euh, tribunal euh, d'instance tribunal première instance ci Lamot. Hmm. yaa ngi gis début bi ñu ne Maguette Diop moo ko doon atte mais bi ñu demee ba ñaaw njort ci Maguette Diop ñu jël Maguette Diop teg fële jël Lamot dañoo xamoon ne xam naa Maguette Diop du leen defal lu ñu bëgg ñu jël Lamot teg ko parce que Lamot il est corrompu ñu jël ko mu defal leen Sall bu loo condamné hmm. Khalifa Sall ñu demaat Demba Kandji moom moo ko fa teg hmm. Demba Kandji defal leen Sall bu loo li waa mm-hmm. euh, première instance àtte mm-hmm. ñu demaat cour d'appel mm-hmm. euh, astafurlah ñu demaat cour de cassation ñu accélérer affaire bi xam ne élection yi le 24 février la ñu gaaw pourvoir bi ñu rejeté ko le trois ñu délibéré le trois le 3 janvier te am na ay pourvoir à cassation yoo xamante ni def na ñaari ak foofu noonu ci tableau ci tableau cour de cassation bi parce que Khalifa Sall Macky Sall moo jël benn plan de liquidation en complicité avec des juges corrompus qui sont au Sénégal affaire bi réussir léegi loolu ñëpp di ci teg seen bët kilifa diine yi kilifa aada communication traditionnelle yi. kenn du wax kenn du wax parce que am na fu mu jaar ak ñoom na ma yàlla baal. non loolu moo am sax loolu koy bàyyi amul ragal pour wax ko sax loolu moo am. mais waa société civile bi rek ngay dégg wax ak représentant euh, kii euh, représentant wu kii ñoom Assane Dioma Ndiaye nga am ne ay droits de l'homme si lañ. ay ñoom Birahim Birahim Seck ñooñu rek ngay dégg ñu wax suñu waxee ñu ne dañoo contre régime bi mais lan moo tax dañoo contre régime bi mais léegi bu ñëpp ànd ak régime bi lu régime bi def ñu ne baax na en éliminant ses adversaires tous les jours ci loolu la ñuy nekk di bafouer seen ay droit moo tax bi ñu euh, waxee ne Khalifa Sall waaw pour am bi dañ ko rejeté léegi ñu ne dafay dem si rabat d'arrêt man sama live boobu nan ma defoon man na leen mais. Ah. avocat Khalifa sàll yi ak euh, waa këram partisan yi yooyu ñu sonal seen bopp. yow ku euh, cour communautaire bi CEDEAO joxe seen arrêt ne leen yéen att bi ngeen att Khalifa sàll jaarul yoon te yow nga tënku ci cour boobu noonu sa ay nawle nekk fa. Hmm. signé. Hmm. ne lépp luñ àtte dinaa ko dog luñ dogal dinaa ko nangu hmm. juridiction internationale yëpp daan la yónnee la ay arrêt ne lii jaaduwul teguwul ci yoon moo xam hmm. affaire Khalifa Sall moo xam affaire Karim Wade ku mën a jël nag arrêt wu CEDEAO dëgg ci sa tànk jaxase xotti sànni teg fële na man faale ma ay CEDEAO kooku di nga faale ay rabat d'arrêt non mais kooku doo <laughs> faale ay dëgg ñun dañoo faale ay rabat mais ñaata professeur de droit nga dégg fu mu nekk nii instant bii nii ñuy wax ci di intervenir ci rajo yi ci télé yi di wax ne rabat d'arrêt bi dafa suspensif ñëpp dégg nañ loolu mais ñoom duñ nangoo dégg loolu parce que mat Sall moo leen teg foofu corrompre leen jox leen xaalis ne leen deuxième mandat la soxla dimbal leen ma am deuxième mandat su ngeen paree dem retraite seen affaire baax te li ma métti ci Sénégal li ma métti Sénégal mooy Sénégal duñ topp mukk magistrat policier bu marche amee mu ray benn nit mu juum def légitime defence rey nit ñu yóbbu justice suñ dóoree nit dóori métti ñu yóbbu justice yeneen corps yëpp ku ci def erreur ñu yóbbu la justice muy droit nag feneen ak feneen waaye léegi lan moo tax magistrat bi nga xam ne dafay nekk en complicité ak waroon a am indépendance nangu Euh, exécutif bi di ko manipuler di ko instrumentaliser pour éliminer ay adversaire lu tax léegi beneen président bu ñëwee ay juges yi nga xam dañoo indépendant ñoom duñ topp magistrat yooyu noonu def ci enquête ne leen yéen da ngeen ne condamné woon Khalifa Sall en complicité avec Macky Sall mais loolu il est temps mu am te ñu xaw ma nag kañ la ñu amaat beneen président parce que man euh, man awma yaakaar ne wax dëgg yàlla Macky Sall dinañ ko gagné man moom fi xeex bi laa wax dëgg yàlla aw ma yaakaar quoi. jàpp. boo ko waxee sax am naa yaakaar ne que xam naa ne moom day sàcc élection yi mais bu ñu ko ci yoon bi Macky Sall du gis dara. non mais élection yi résultat préfabriqué la yow lan lañu la fi waxoon waxuñu la woon ne la cinq euh, il n'y aura cinq candidats. ku ko waxoon buñ jon mm-hmm. ñaata candidat lañ lañ publie tey ci suba mooy euh, euh, kii bi provisoire bi mhm. cinq candidats la Macky Sall moo nekk à la tête mhm. après Idrissa Seck sa Sall Sonko ak Madické Niang mhm. cinq yooyu da la Boun Dionne waxoon te bu Boun Dionne nekkul conseil constitutionnel du juge dara ministre la ci exécutif bi la bokk léegi déjà loolu am na léegi nag ñu waxaat ñu ne ñoom ils vont gagner au premier tour avec cinquante quatre pour cent léegi nag des na loolu loolu moo des te du mujj fenn parce que ñun dañoo nekk benn peuple boo xamante ni dañoo dañoo ragal. Ah, ba pare dañoo ah. ñemewul fitna te duñ nekk benn pour di xeex benn affaire suñu waree xeex benn affaire au lieu que ñu nekk benn di xàccandoor di dóorandoor. mais duñu eh, def loolu mais kenn ku si nekk da ngay dafa bëri ay las na ma yàlla baal comme waaw comme ni koy gars yi di waxee daal dafa bëri ñoo xam ne ay las lañ hmm. mais nga xeexal sa réew ba dee ci sax loolu ci fitna yi leen di teg. wala ci koo xam da ngeen ko fal mu leen di jaay doole mais loolu ci jaamu yàlla la bokk. ok jaamu yàlla bokk. Mhm. waaw mais yow waaw mais yow su fekkee da toog ci sa réew. ngeen fal benn président muy def ci n'importe quoi lu ko neex mu def mais yow ëllëg. ëllëg bu ñuy layoo ak yàlla yow da nga ciy bokk parce que yow da ngaa waroon a wax waxoo wala nga waroon a jëf te jëfoo. ba pare maa ngi doon wax ci wàllu maa ngi doon wax sànq ne la ci wàllu sociologie bi donte defuma ko mais dama ci am lenn loo xam ne Sénégal seen société bi moo demee noonu dañoo nekk nit ñoo xam ne dañoo ragal dañoo bëgg teraanga ba pare dañoo ragal jamono xam nga ragal jamono mooy lan comme ni koy sama mbokk waa Medina Baye di waxee ragal jamono mooy nit koo xam ne da ragal ñàkk mais ñàkk dans la dignité mais loolu moo dàq fuuf léegi nag Macky Sall nag loolu la xam moo tax comme li yàlla wax ci alxuraan ne rabbukum aalamu bi maa fi nufusikum Macky nag loolu la def ci boppam bi maanaam moom comme li yàlla wax ne moom moo ñu gën a xam li nekk si ñun moom mu ñu bind mais Macky comme que moom il est issu de la société sénégalaise boobu noonu société sénégalaise bi nga xam dañoo ragal jamono ba pare dañoo bëgg xaalis dañoo bëgg teraanga bëgg prestige moom foofu la génnee moo tax nag loolu la xam comme li Abdoulaye doon def loolu lay def waaw day jël xaalisam boobu xaalis muy huit milliards yi di ko jëfandikoo di ci corrompre ay nit te seen gémmiñ ñu noppi ba pare ne Sénégal dañoo gaaw a fàtte dañuy wax ne sénégalais dafa gaaw a fàtte lu am ñu fàtte ko. du mujj fenn lañu lay wax. léegi Macky yooyu yëpp ñi ko wër di ko loo sale boulot yii yëpp gëm loo nañ ko loolu moom tamit gëm na loolu parce que moom sénégalais la xam na Sénégal yi te jaar na ci nguur. daf mhm. na ci Ablaye Wade huit ans bokk ci système bi. Mhm. donc moom xam nañu bu baax xam nañu ne sénégalais boo oo oh, ñu ci ëpp boo jëlee cent sénégale quatre vingt pour cent yi sont des corrompus na ma yàlla baal. doomu nga xam ne dañoo am ngor ñi nga xam ne dañoo am ngor dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg te duñ ko jaay ñooñu mën naa wax ne vingt pour cent lañ Sénégal. mais gis nañ ko ci transhumance yi fii am na ñoo xam ne démb wax nañ fi lu nekk saaga fi Macky Sall xas ko même temps yi Ablaye Wade am na ñu doon saaga Ablaye Wade di ko xas après ñu corrompre leen ñu dem transhumé ji. léegi nag Macky moo tax mu entamé xeex bi xam ne moom lépp lu mu dugg day réussir te nag wax nañ waxante dëgg depuis bi mu commencé ba léegi xeex bu mu déclenché da koy gagné. waaw te te te ñi war a wax ak moom kenn du ci wax ak moom mooy ñi ma la doon tuddal sànq. Mhm. kenn du ci wax moom. da ngay gis benn kilifa diine sax boo xamante ni euh, day toog taalibe yi toog mu ne leen Macky Sall moo fi gën. li mu fi def kenn defu ko fi te xaalis boobu Macky Sall bi ñëw di defaree këru diine yi xaalis boobu l'argent du contribuable la. right dëgg est bu nekk toon président moom dina mën a dem di defar ay këru diine loolu man na ko. non. waaw léegi que ça soit Tivaouane Kaolack Ndiassane ak Touba ñun si Sénégal lañ bokk comme nga defar dakaar wala nga defar Fatick wala nga defar Ziguinchor rek. est-ce que président bi bu defaree benn pont Ziguinchor wala mu defar benn tali euh, Saint-Louis. est-ce que dañ ko war a wax euh, merci. non il a été non pour ça dañ ko fal pour mu def loolu. donc dañ ko fal ne ko liggéeyal ñu suñu réew jox ko xaalis kon moom mhm. li ko war mooy liggéey rek liggéey rek la war a def may nga toog gis taalibe yi ci précarité bu ñu nekk jafe-jafe yi ñuy dund sonn ah yow sa taalibe yi baykat yi ñu ngi ci nappkat yi ñu ngi ci xale yu amut liggéey ñu ngi ci am ay diplôme amuñ liggéey ñu ngi ci mhm. xam nga jigéen ñi nga xamante ni dañu nekk ci foyer di sëy sonn di soxla ndox duñ ko am di rooti ñu ngi ci léegi nag yow nga toog waa ji di def lu ko neex nga nopp te sëriñ yóbbu sëriñ boobu ngay gis mu ngi yore ay kat-katam yu rafet yore euh, ay këram yu rafet yore passeport diplomatique am mhm. fu bëgg a dem ci àdduna bi dem fa doomam yi tamit nekk dans les mêmes conditions. Mhm. njabootam léegi nag taalibe yi nga xam ne ñoom bu événement jotee ñoom ñooy sukk di raam di ñëw di dajale seen addiya di leen ko jox ñoom ñooy nekk dans la merde ñoom ñoom kenn du leen kaasal dara. Mhm. loolu moo tax nag mën na leen nag il faut que ñu dindi loolu ba mu set wecc wecc wecc pour Sénégal mën a baax mooy li ma la wax du début à la fin yi mhm. yooyu yëpp il faut mu deñ yow imaginer nga ne yow da ngay xëy rek sol sa benn grand boobu sol sa mbaxana ñëw ne man maay communicateur traditionnel président bu ñëw nga tagg ko bu keneen ki demee nga xas kooku. ne ne kii moo fi gën a baax. affaire naa mais mais naa fekk gi nag moo bëri Sénégal te nag yàlla dafa wax ne inna allaha laa yughayyiru maa bi qawmin hatta yughayyiru maa bi anfusihim gis nga askan wi ma bind nekkul man yàlla mu leen bind maay wàcc naan damay jéem a changer seen jikko yi mais jikko yéen a koy changé seen bopp pour seen seen société bi mën a baax. te makaarimal axlaaq yi makaarimal axlaaq yi ñëpp xam nañ ko jikko rafet yi ñëpp xam nañ ko. mooy gore ba dee bañ a jël xaalisu ger bu wax dëgg jotee nga wax ko. Mm-hmm. tey ji Khalifa Sall ak Macky Sall. Khalifa Sall ak mm-hmm. Macky Sall tey jii ban sëriñ nga gis tey mu am courage rek taxaw jël micro ne ko Macky sàll li ngay teg Khalifa Sall ñaaw na. tegoo ko ci yoon xanaa sëñ sëñ Mansour si Djamil laay dégg muy wax. te moom sax moom bon xaj politicien la opposant la te bu ko neexoon sax mu ànd ak Macky Sall mën nañ ko féliciter ci loolu parce que bu ko neexoon mu continuer nekk ci Benno Bokk Yaakaar ba léegi mais dafa bokkoon ci Benno Bokk Yaakaar jàppale woon Macky Sall mais léegi jàppaleetu ko mu ngi ci opposition parce que bi mu gisee ne Macky Sall lu muy def dagawul ci yoon moom il préfère wax ko dëgg xulil xaq waraw mu muran moom loolu la def parce que jàngkat la ci kër diine la bokk waaye nag ak ñoo xam ne jàng nañ te c li yàlla wax xam li yonent bi wax ñu dëgg seen ndax alalu àdduna te loolu moo yàq Sénégal bokk na ci lu yàq Sénégal loolu maanaam naafeq gi dafa bëri Sénégal naafeq gi dafa bëri Sénégal maanaam wax bu ñu wax dëgg maanaam dañuy dëgg teg seen tànk comme ni nga wax waaw. fu mu nekkee ne fu mu nekkee wax nga lépp xam nga wax nga mooy nekk Sénégal maanaam ñun comme maanaam wax wax dëgg daal parce que da ngay gis ñoo xamante teg ñu parce que tamit da ngay gis Macky Sall lu mu def Sénégal a wax ñu Macky Sall def fi dara na fi léegi moom loolu a Sénégal maanaam mais loolu yëpp loolu loolu yëpp mooy li doon wax rek mooy ragal jamono bëgg teraanga rek bëgg teraanga xaalis bu mu leen di corrompre ñoom ñëpp di leen di tëj seen gémmiñ xaalis boobu c'est l'argent di contribuable sax xaalis la yow alfa yaa ngi Europe di liggéey di yónnee seen waa kër. xaalis suñu xaalis la. d'argent bi ñu koy jaarale ñooñu dañuy fay impôt dagg si si sa xaalis bi. xaalis bu àggee sa kër moo xam sa jabar nekk fa wala sa yaay bu demee ci boutique bi jënd ci dañ ciy jël TVA. soo jëndee sa oto yóbbu dédouané TVA. soo fa amee sa benn petite et moyenne entreprise comme euh, GIE wala benn SA SAR euh, euh, nu koy waxee sax. Euh, société à responsabilité euh, limité ak yooyu noonu yëpp wala SA société anonyme yooyu yëpp dangay fay impôt. léegi nag xaalis boobu nag moom la jël di si jënd ay nit te loolu il faut ñu supprimer ko Sénégal Sénégal il faut ñu ut ku bees koo xamante ni dañuy toog ñu waxtaan mm-hmm. dafaat yeneen assise nationale mm-hmm. waxtaan Sénégal yëpp bokk ci ñëpp mm-hmm. bokk ci kilifa diine yi kilifa aada yi Euh, société civile politiciens yi euh, xale yi nekk ci euh, yore ay association yeeg ñëpp ASC yeeg ñëpp ñu def ko benn débat boo xamante débat national boo xamante ni dina def deux mois ñu waxtaan constitution bi donte laal nañ ko laalaat ko ku ñëw di nga ko laalaat mais Macky Sall laal bi ko laal ñu arrangé wuñu parce que dafa ñëw laal ko pour éliminer ay nit def ay règlement de compte mm-hmm. waaye nag dañoo bëgg ñu toog ba waxtaan ba juboo tënk defaraat constitution bi ba mu baax ba pare verrouiller ko tëj ko définitivement nga xam ne kenn dootu ko laalati séparation des pouvoirs yi ñu dëggal ko justice bi kenn dootu leen nekk di leen manipuler ministre ministère de la justice bi suñ ko mënee suñ ko mënee supprimer xool neneen nu ñu koy defee garde des sceaux tout court wala dara nga xam ne euh, exécutif bi dootuñu amati benn accès naan dañuy jéem a dem ci ju ci euh, pouvoir judiciaire bi di leen jéem a corrompre wala di leen jéem a instrumentaliser président bu falu ñu ne ko signal ku falu si constitution bi boo faloo rek tu démissionnes automatiquement à la tête de ton parti automatique amul sax ay j'ai démissionné wala dara waaye si toutefois yow tu es élu président rek sa démission si à la tête de ton parti dafay dafay dafay automatique automatiquement lay nekk amul sax wax ñu bind ko ci constitution bi bind ci constitution bi ne caisse noire amatul président bi buy tukki dañ koy jox xaalis jox ko de voyage bind ko mu am traçabilité leer xaalis bi hmm. trésor la génnee numéro euh, chèque bi nii la mel naa photocopie yëpp teg mu leer fondation ay premier dame seen xaalis bi fu muy jógee ñu xam source bi mu leer naññ man bala ñoo dee sénégalais yi nekk fii di ñu sonal ay Marème Faye dafa baax bu benn célébrité feebaree nekk ci réseaux sociaux yi naan waaw maa ngi lancé appel première dame est-ce que euh, célébrité boobu moom rek mooy sénégalais bi ñaata sénégalais ñoo nekk ci hôpitaux yi di feebar nekk ci situation boo xamante ni kenn mënu laa wax situation situation yu boité deux mille francs yi ñu jëndee tiket sax pour faju duñ ko am surtout bi man dama bëgg nga ñëw ci problème santé bi tuuti rek Sénégal problème santé bi ñun problème boobu daal am na ko suñu daal te moom loolu moom day a jëm kanam rek ñi ma gis ko am dafa ñëw eh, maanaam loolu maanaam tane mais ba mu ko daan gis sax mais boo xoolee problème santé bi tamit c'est très important Sénégal boo xoolee ku feebar da ngay dee mais Sénégal wax ma ban secteur mooy marché Sénégal Alpha ban secteur nga teg sa baaraam ne secteur bi transport santé éducation. éducation zéro. waaw ban ban ban secteur ngay wax ne moo moo mucc ayib ci Sénégal. amul amul amul man de gisuma mais ñun amuñ ma amuñ amuñ amuñ plateau médical bu baax amuñ ay spécialistes yu bëri gis na Sénégal tey jii boo ñëwoon France wala nga dem Espagne wala si yeneen réew yu développé yi donc ñun sax développé nañ quoi dem nañ mais ah, volonté mooy tax nga développé ko ak euh, ak patriotisme da gis ne dañuy def benn liste boo ñëwee ci benn hôpital xoolal spécialiste yi da ngay gis liste bi fii lay commencé benn tableau lay nekk ci kaw ba ci suuf spécialisation yëpp di ko gis gis spécialité yëpp. mais Sénégal am na spécialisation yoo xam ne amu fa am na ay spécialistes yoo xamante ni amuñ fa. yenn feebar boo ko feebaree yaa ngi ci risque ba pare amuñ matériel médical. yow benn réew boo benn réew boo xamante ni ñeneen benn radiothérapie moo fa amoon di maas nit te chaque jour nga gis ñu jël ay milliards di ko passer passer di ko yàq di ko def si ay yoo xamante ni c'est inutile. ñàkk fayda ñàkk fayda sax. mais imaginel imaginez 32 milliards yu ñu jël def ko ci arène bi te arène bi bëre mënul sax euh, mënul sax euh, tëgg combat wu Balla Gaye ak euh, ak Modou ñu def ci 32 milliards loolu ñaata hôpitaux la mënoon tabax ak ñaata matériel médical la mënoon a jënd yu mucc ayib ñaata médecin lañ mënoon a jël yóbbu leen Europe ñu dem def ay spécialisation loolu moo mais waa ji li def maanaam. xamu ko. Hmm. maataïsme c'est du maataïsme. est-ce que xam na lu muy def moom dama wax ne Macky Sall moom est xam na lu muy def def parce que en tant que président yow loo xamante ni yow saa boo defee maanaam sa bilan lépp zéro la xam nga lan xam xam lan mooy problème am xam nga lan moo ko sonal moom. moom moom matul kilifa matul njiit moom taxaw na fii Daniel théâtre national Daniel Sorano bu muy joxe ay prix ay meilleur étudiant xaw ma meilleur daal. xam nga lan la leen waxoon moi j'étais pas prêt pour être président de la république nee na moom sul pare pour être nekk président de la république xam nga lan moo tax mu dem à la conquête du pouvoir hmm. parce que xool bi moo baaxul rancunier la maanaam dafa joteeg ñoom Ablaye Wade léegi mu mer ne dañ kaa toroxal léegi mu dem yàlla piège ko yàlla da ko piège te moom xamul loolu yàlla natt ko ne comme que kii rancunier la xaaral ma jox ko pouvoir bi xool ba xam ndax dina def comme ñoom Nelson Mandela ndax dina def ñoom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax dina def ñoom yonent yàlla Yusufa mi nga xam ne ay frère ñoo ko jël dugal ko fii rayabatil jubbi ci au fin fond du du puits mu dem ba jekku te baalewut ndax dina def loolu mais waa ji il est passé complètement à côté dafa ñëw rek déclenché benn acharnement ci famille Wade bi ñëw ci Khalifa Sall yàlla da ko doon yàlla da ko yàlla doon da doon da ko doon seetlu xam na yàlla yàlla dafa garaaw da doon seetlu ba xam ndax kii ndax am na grandeur bu nekk ci moom mhm. xam nga tey Nelson Mandela dafa nekk dëkkam ay tubaab jàpp leen toroxal leen parce que dañ doon def dañ doon def boddikante ci xeet di gënale xeet yi der bu ñuul ak der bu weex di arrosé euh, nit ñi ñuul ak ay fetel di leen rey mhm. muy xeex loolu pour égalité am liberté am ñu jàpp ko tëj ko vingt six ans jabaram même chose Winnie Mandela. waaw bi mu génnee bi mu génnee xam nga lan la wax bi apartheid bi jeexee xam nga lan la wax man lii def ma ko woon pour nekk président de la république mais parce que man je suis un patriote man patriote laa dama ko doon def pour bëgg sama réew. mu def benn manda mu def benn mandat jox bu mbékki dem yoonam. mais héros la moo tax mu nekk héros. am na am ay ak am na acte yoo xamante ni boo ko defee yàlla da lay yëkkati ba faw mais Macky Sall day wàcc day suufee ba àdduna di tukki parce que parce que du gentleman quoi te vraiment mooy li ma la wax rek yàlla def ko piégé yàlla dafa jotee ak Ablaye Wade yàlla na ko léegi comme que Ablaye Wade da wax ne da la doon toroxal te yow da am looy jàpp sa xol bi xaaral ma gaaw jox la nguur gi dindi ko ci Ablaye mm-hmm. teg la si seesam ma xool yow ndax nan ngay doxalee xam nga tey jii su fekkoon comme man maa nekk place mm-hmm. xam nga lan laay wax su su ma faloo rek damay njëkk ñëw ci Ablaye Wade nuyu ko baalu ko ak na ko yaay sama baay jafe-jafe mënul ñàkk ci àdduna divergence mënul ñàkk li ma xam ci mm-hmm. politique yaa ma nga xamal yaa tax ma nekk directeur général euh, Petrosen yaa tax ma nekk ministre de l'intérieur yaa tax ma nekk ministre de l'énergie yaa tax ma nekk mm-hmm. premier ministre yaa tax ma nekk euh, président de l'Assemblée nationale baal ma ak yaay sama conseil yaay sama idol jeex na négocier ak ñoom Karim wàdd naxanteeg ñoom même su fekkee Karim dafa jël xaalis sax xam nga nga naxante daf ndànk rafetal waxtaan juboo dialogue jéem a récupérer ndànk xaalis bi Karim dugalaat ko ci réew mi ngeen liggéey mu jeex mais dafa ñëw rek mais moom day acharné wu ci kaw famille wàdd bi pour fay wante mhm. mais nag il va sortir par la petite port mhm. porte bu mag bi moom mënu cee génn parce que jëfeewut loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yi nga xam ne mooy ñu royukaay ñun jullit ñi jàpp nañ benn waay jël na ko di xapp mbalit buntu këram chaque jour te moom fa la doon jaar di dem di di julli ji mm-hmm. waa ji photo bundu xataal façon bundu xataal bu nekk def na ko ko mais xam nga lan wax yonent bi mm-hmm. grawut mm-hmm. benn jour waa ji feebar yonent bi toog lu yàgg gisul ne waa ji mu ngi xëpp mbalit ci buntu këram ku doon xëpp mbalit ci buntu këram gëj naa ñëw xëpp ko foofu ci yoon bi mu doon jaar ay une semaine yooyu gisul waa mu ne ah man de waa ji gisuma ko xaaral ma dem seeti ji ko mu dem seeti ji fekk dafa am ko ko wax na ko waa ji dafa feebar dañ ko wax na ko waa ji ko feebar mu ñëw ne ko dama laa gëj a gis moo tax ma ñëw di la seet si xam nga kooku rey na waa ji ba mu dee waa ji si jour boobu la wax ne ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah yow moom kenn gënu la yow yow yaay gën gi mu def imagine nit koo xam ne dafay ñëw di jël ay mbalit di ko tuur sa bunt kër di la provoquer mu feebar nga dem seeti ji ko waaw ah, yonent bi moom exemple la mais Macky nag malheureusement nekkut sax un vrai man pour man na ma yàlla baal de du ma seet wa na shahidnaa illaa bimaa alimnaa loolu la wax waaye man du ma wax ne c'est un vrai musulman parce que du muy doxalee nii jullit du doxalee noon mooy fay di acharné wu ci kaw nit ñi waaw di acharné wu ci kaw nit ñi loolu du jikko jullit ba pare ñi jàng diine xam diine représenté diine ci Sénégal ñu ngi toog di xool waxuñ ko dara duñu wax wax duñu wax mais loolu c'est ah, très dangereux c'est catastrophique ça ah. mais c'est une catastrophe maanaam président mënut ñëw rek ci maanaam si benn voie boobu ngay jaar rek parce que da ngay xam li fa nekk rek xam nga Macky sàll li ma doon wax tey ci suñu royukaay yi Macky Sall tey Abdoulaye Wade tëju ko kaso Abdoulaye Wade def ko dara lu ñaaw Karim Wade la joteel donte boobu Macky moo nekkoon ci dëgg parce que Karim Wade dafa amoon obligation pour ñëw ci assemblée nationale pour leeral xaalis ANOCI fan la ko dugal il était obligé de le faire. Mhm. waaw. léegi Abdoulaye Wade xolu doom jàpp ko mu sot ne ah. kii def maa bëgg a toroxal ak li ma ko defal yëpp ne day laal sama doom xam nga loolu bëgg doom moo koy def moom mii mënoon na ko dal moom Macky Sall ah. Ablaye Wade foofu il était fautif parce que dafa bëgg doom moo ko moo ko yóbbee loolu yaa ngi dégg léegi moom tëjuñ ko kaso defuñ ko dara mais imaginel yonentu yàlla Yusuf alayhi salaam kooku ay frère yu mu benn baay ñoom benn ñoom kii euh, Rubiya Yahuda xam nga ñoom ñoo ko jël yóbbu ko dugal ko ci teen ku la dugal ci teen lan la bëgg yow mi ku la jëloon dugal la ci teen alpha lan la bëgg du dafa bëgg nga dee. <laughs> olof Njaay nee na ku jël kurpeñ jëmale ko si sa si sa si sa si bët dafa bëgg nga gumba ku jël kurpeñ tamit jëmale ko jëmale ko sa gémmañ dafa bëgg nga jaal waaye ku la jël tamit dugal la ci teen kooku dafa bëgg nga dee. bëgg nga dee right. yonent Malik ibnu ibnu Zaari benn égyptien la moo ko for ci teen bi foofu noonu Israël yóbbu ko Égypte bi mu ko yóbbee Égypte après mu jaay ko foofu noon benn buur bu nekkoon foofu ak jaar-jaar yi fa jaar mu am fa ay coono jafe-jafe ba yàlla yëkkati ko mu nekk eh, Aziz maanaam premier ministre demaat ba mu yàgg nekk émir Malik bi di buur bi mm-hmm. mais gis nga ñu ko bëggoon dugal ci teen boobu noonu yàlla da leen natt ñu dem ba mu yàgg gis nga fu ñu jógee woon foofu Israël famine lañ amoon famine xiif amuñ luñ lekk ñu ne léegi dañuy dem Égypte ci buur bi ñu ñaan ko pour mu dimbale leen ñu ñëw fekk euh, seen frère bi ñu bëggoon dugal si teen bi sol sol euh, couronne bi nii toog xàmmee wuñ ko mooy Yusufa ñu ne ko yaa ayyuhal azizu massana wa ahlana durra mu ne ko yow buur bi dimbale ñu ngir yàlla ñun dañoo ñun dañoo loof dañoo sonn ñun amuñ lu ñu lekk suñ lu ñuy jaañ lañ bëgg nga jënd ko après comme ça ñu am te nga dimbale waale ñu quoi mais Youssouf après xàmmee na leen ñoom xàmmee wuñ Youssouf mais gis nga bés buñ Youssouf topp leen sax da leen dimbale ba pare xam nga na leen dem leen indi seen frère bi Benyamin kooku ñëw après waaw mu demee noonu bañ yàgg ñu xàmmante inna ko la ante Youssouf xam nga mu ne leen waaw ana Youssouf xam nga wa haza aqi qad manna allahu alay na xam nga wax leen na leen daal man maa yusufa mais bi ñu demee ba retrouvé wu après frère mi xam nga lan la leen wax la tasriba aleykumul yawm amul dara lu ma leen di toppee seytaane moo doxoon suñu diggante xam nga léegi jeex na quoi nañ fàttali lépp te Macky loo ñooñu luñ daj ñoom daju ko ñooñu maxaama bu ñu amoon ak euh, nuñ nekkoon ci ci àdduna moom amu ko parce que moom du wàllu yu te ñooñu dépassé du wàllu ay yónu ay yónant lañ te Macky du wàll yi du yónant yow nekkoo nekkoo yónant nekkoo wàll yi ba pare mënoo muñ di fay wante te ñële ñoom ay yónant lañ gën la fuuf nekk nekk ñoo xam ne yàlla moo leen yónni ñu ñëw ñu toroxal leen ñu dem ba jekku war a fayu ne léegi ñoom dootuñ fayooti yónant bi sallallahu alayhi wa sallam dëkk bi mu dëkk comme yow nga dëkk Kaolack wala nga dëkk Ziguinchor wala Kolda wala feneen ñu génnee la sa dëkk na la génnal dëkk bi kan moo am droit boobu te boo demee ci boo demee ci état civil ba ñu gis ko turu alfa alfa Diallo ñu ne yooyu génnal génnal Kaolack wala génnal Ziguinchor yonent bi juddoo màkk yaroo fa di doomi màkk ay maamam ay maamam euh, sañci màkk ñu ne ko génnal màkk jaay ko doole mu dem Medina ñu fat ko bi mu demee ba jekku moom ba am doole moom dafa ñëwaat màkk mooy fat ko màkk bi xam nga bu mu ñëwee lan leen wax damay wax dama leen di wax li sama mbokk ba yonentu yàlla yusufa li mu waxoon mbokkam ya moom laa leen di wax la tasriba alaykumul yawma amul dara lu ma leen di toppee jàmm rek moom moo fi indi nañ nekk ci jàmm te Macky dajut loolu yëpp nañu waxante dëgg lu yonent bi daj Macky du daj daj xaajaat amul mak jegewu ko sax suñu wàll yi ñoom sañ Touba luñ daj ñu jàpp sëñ tubaa dañ ko jël fekk ko ci dëkkam jaay ko doole dugal ko ci bato bi yóbbu ko exilé ko di ko jéem a toroxal di ko jéem a lu nekk ñu def ko ko mais caalisu benn yoon. benn yoon benn waa léegi bi mu bi ba jekk est-ce que fayu na. dana la jéggal. jeex na loolu moo tax yàlla yëkkati ko nii mu am maqaama tey àdduna bi yëpp di jógee ko fu nekk partout di dem di màggali Touba. ak yeneen sëriñ ak yeneen sëriñ Baye Niass nee moom xam nga lañ la déggul Baye nee moom bi Baye biir na rek la déggul te lu mu nekk lu mu nekk góor moo tax ji ñu ko lool mais à part loolu lu nekk noonam yi teg nañ ko ko lu nekk façon métital bu nekk façon xeex bu nekk xeex nañ ko ko pour mu bañ a réussir mais est-ce que tere na ko àgg Nigéria pour euh, mission yam mu àggali ko est-ce que tere na ko dem Mali tere na ko dem Burkina tere na ko dem partout région bi tere na ko dem Chine tere na ko dem Égypte tere na ko dem Thaïlande foofu foofu yëpp dem na fa ravager fa am fa ay taalibe. parce que liggéeyam bi boo demee Medina Baye nga fay fekk ay xeet yoo xam ne ay xeet yu différent lañ ay indonésien ay lépp nga fay gis ay indo. am sama benn xarit sax boo xamante ni bu am xorom la nee na moom waa Corée du Sud lay xaar quoi gisagul waa Corée yi <laughs> ak waa Pyongyang yi quoi. loolu yëpp lu koy waaw loolu yëpp lu koy loolu yëpp Macky daf cee war a jàng ba pare am ay nit ñoo xamante ni kilifa diine yi mu jox bopp te ñuy toog chaque jour di ko faral di jël opposition bi di leen saaga di leen xas nañ ko wax dëgg te ragal yàlla li ma wax ni yëpp li ma wax ni yëpp ñoom ñoo ma gën a jàng fuuf bu ñu ko waxoon sal Sall Macky dina nekk nit te rek yàlla tax dina nekk nit bàyyi lu muy def waaw donc nag sama yaram daal dafa tàng ndax patriotisme bi. yow yow yow fu ne wax nga lépp macha allah. fu ma fu may jeexalee rek mooy euh, waxoon naa leen ne leen Khalifa Sall ak euh, Karim Wade duñ nekk candidat te waxoon naa leen ko quoi je vous l'avais dit. waaw te loolu processus bi yëpp. boo ko xoolee du début ba ci fu mu yem nii du début à la fin da ngay xam ne fii rek la mënoon a mujjee quoi donc ñun ñëpp gis nañ ne conseil constitutionnel génnee nañ tey seen euh, liste candidats yi validé nañ mu nekk provisoire provisoirement léegi nag nee nañ Karim Wade génne nañ Karim Wade génne nañ Khalifa Sall nee na gars yi bu ñu sonal seen bopp lii Macky moo leen ko sant duñ sax nekk candidat jarul sax ay recours parce que bu ñu defee recours ñu sonal seen bopp. waaw léegi daal li fi des mooy opposition bi nga xamante ni ñi nga xam ne recalé nañ leen ay ñoom Abdoul Mbaye Malick Gakou ay ñoom euh, nu mu tuddati Agibou Soumaré ñeneen ak ñeneen ku lim juum ñooñ nañ dem rejoindre ñi nga xam ne ñoom lañ validé ñoom Idrissa Seck ak Sonko ñu nekk benn gars yi Khalifa Sall yi nañ nekk benn dem jàppale kenn gars yi Karim Wade yi dem jàppale kenn ci candidat yi nga xam ne ñoom lañ validé su ko defee nag ñu xeex xeex bi pour mën a gagné donc man sax maa ngi wax naan ay Macky day gagné xam nga mais mm. bon li mu li ñu gis loolu lay nuru parce que Sénégal dañ mën a seetaan xam nga mais yàlla tamit toujours li ñuy wax naan yàlla moo ay ci póotum buur da ngay da ngay weer ba mu fend mu taw ci kawam moom mën na def ay plan yam ak ay gaayam jël xaalis neexal leen korom pour ay juge lu nekk mu def xam nga ba jàpp ne moom génn na ci rek affaire bi ñëw njuuy ko waaw parce que gars yi bu ñu jotee seen carte am na benn façon vote boo xamante ni bu ñu voté massivement contre Macky Sall rek dina leer leer goo xamante ni dina dem deuxième tour wala ñu éliminer ko sax premier tour te su boobaa du mën a contester dara. waaw waaye nag li ma gis a man ak li ma ñaaw gum njort mooy ne day gagné élection yi parce que lépp lu mas wax réussir na parrainage beeg euh, euh, référendum beeg yeneen ak yeneen te gis nañ ne bàkku na après. ne waxoon naa leen ne dinaa ko def da ngeen waxoon ne du am te am na donc ba léegi ci dynamique boobu la nekk moo gaayam kon Alpha maa ngi lay jox rendez-vous beneen yoon jërëjëf. merci beaucoup jërëjëf. waaw nga nuyul nga nuyul ma nga nuyul waaye ah. yow dinañ a yaatal bagage man daal man daal maa ngi maa ngi à votre disposition daal ñun ay Sénégalais lañ ci Sénégal rek lañ bëgg. xam nga dañuy prôner pour le développement du Sénégal et pour la bonne marche de notre pays. waaw waaw donc heure bu ngeen ñu rek dinañ joxe suñu xalaat incha allah. allah incha merci merci jërëjëf. waaw sama wax na fi maanaam lu am na ko xam moom xam na régime bi xam xam na luy luy daw xam nga maanaam maîtriser na côté boobu noonu bu baax yéen a ko déggandoo macha allah am na solo xëy na temps bi moo ñu ko dul may rek yoram fu ñu dem moo tax xam nga rek duñu bàyyi duñu bàyyi hmm, parce dañ ne xeexal sa dëgg. si jaamu yàlla la bokk du dëgg kon boog ñun yoon bi Assane Diouf moo ko xàlli maanaam di wax firi Assane Diouf comme en d'habitude rek man moom xam ngeen man damaa bëgg Assane Diouf te man duma ma ko waxantu daal waaw firi Assane Diouf di ñaanal Assane Diouf fu mu nekk yàlla na ko yàlla may wér ak gudd fan waaw di ziar ñëpp rek ñu noonu seetaan waaw di ziar ñëpp rek sama gaay di ziar Tafa Sarr sama doomu ndey di ziar. Ah, Aïda Aïda Dora ñu ngi lay ziar bu baax waa di ziar euh, maam seen ñu ngi lay ziar bu baax di ziar ñëpp rek bàyyiwuñu kenn képp nga xamante ne nag ñoon seetaan ñu bàyyi xel ñu ngi lay ziar bu baax di la bëgge di wax nii rek senegal moom senegal ñëpp la Macky Sall moomul senegal Sénégalais yi ñoom moom senegal waa ñëpp am droit génn wax ñëpp am droit wax seen xalaat parce que tamit dañ na xeexal sa dëkk tamit ci jàmm yàlla bopp te du ñu ragal du ñu tiit du ñu dellu ginnaaw du ñu xof waaw Sénégal daal moo ñu intéressé moo ñu ñor di wax gars yi wan loof live bi fii lañ koy daggal xam nga fii lañ koy yemal daal sama olof daa leerut nag bëgg naa ngeen jàngal ma olof ah, Assane Diagne bëgg naa nga jàngal ma olof quoi ndax ma gën a mun a wax olof daal <laughs> waaw sama gars yi wan loof kon jàmm xewal ba jëmmi jamono.